gént lu baax ci yàlla lay bàyyi kon gént lu lay tiit ak lay ragalloo ci seytaane lay bàyyikoo koo bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah ala kulli xaal eh, yonent moo wax arruyatu min allaahi wal xulm min asheytaan mu ne su fekkente ne dangaa gént lu baax yëgal ni ci yàlla sun borom subhaanahu wa taala la bàyyi su fekkee nag dangaa gént loo xam ne dalay tiita di la ragal yëgal na ci seytaane na la bàyyi ko moo tax képp ku gént gént gu lay tiital jógal nga muslu seytaane ñett yoon ndax yéen moo ko wax ko defee nga jàpp bachel la ñëw julli ñaar ràkk gëmal ni gént googu du la mën a lor du mën a yàqal xadis boobu demee ci Buxaari net na ko muslim net na ko kon képp ku gént lu lay tiital ak lu lay ragal lor yëgal ni mbiru seytaane la gént gu baax nag mooy loo xam ni sam xel da koy nangu te mu sell te jub te tegu ci yoon boo xam ne danga xam ne lii dëgg la kon nañ wattandiku tamit euh, bu baree bari istijraaj yi nga xam ne am na ci gént yi istijraaj yi nag seytaane dafa mën a jaay moo tax képp ko xamee wut awliyaa u sheyda awliyaa ullah yoo xam ne boo ko géntee da ngay jàppaan al istijraaj la mooy ak jay yàlla da lay bàyyi ak seytaane mu lay jaay nga gént yenn gént yi nga jàpp ne yaa ngi ci yàlla fekk na seytaane nga nekk ngalawaay nañ gën a xam bu baax fu ñuy teg suñu tànk kon gépp gént gu xel nangu mu sell muy lu baax yëgal ne yàlla suñu borom moo la bëgg dimbali waaye gépp gént goo xam ne gu safaanu la yëgal ne seytaane moo la bëgg yàqal bëgg laa indil ay gàllankoor kon loolu lu mat di bàyyi xel kon ru'yatu min allahi waaye nag wal xol min seytaani kon gént lu baax ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala lay bàyyi ko waaye gént safaan ba yëgal ni seytaane la kon ala kulli xaalin loolu mat di bàyyi xel la ci yenn yi nga xam ne mu ngi jaar ci gént yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa